jigéen la ñuy continuer cette fois ak Mary Bey waxtaanee TIC ak place su jigéen ci nouvelle technologie Merci euh, Bijou. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de l'importance de la dimension genre. Donc euh, euh, li ñuy expliquer mooy la place de la femme dans le dans les TIC, dans le secteur du TIC par rapport aux hommes. Donc dañuy dem seetaan d'abord reportage bi nga xamante ne Aïssatou Paye euh, Fall defaloon nañu ko su ko defee ñu ñëw dellu si waat gën si waxtaan. daje bu am solo ci dundu Senelec ak dundu waa Senelec yàgg na ci réew bi je pense que sujet sujet cancer bi c'est tellement passionnant que invité bi remercier nañ ko ba pare continuer di waxtaanaat ak moom li ñuy suñu objectif tey ak objectif LISCA ak waa Sénégal yëpp je pense mooy gratuité si euh, képp koo xamante ne am na cancer donc benn parenthèse la woon bu ñu tijji j'espère que ñi ko war a dégg dégg nañu ko parce que feebar bi métti na gudd na cher na donc nañu œuvrer ñun ñëpp pour que képp ku ko am ñu mën la faj gratuitement mairie élément bi yaa am mais est-ce que mën nga wax en quoi ça consiste. effectivement donc euh, benn conférence la boo xamante ne ça a regroupé beaucoup de pays euh, francophones euh, d'Afrique francophone pour discuter de la situation de la femme euh, euh, dans le secteur des TIC parce que li ñu euh, li ñu seetlu mooy que ne la femme n'a pas accès n'a pas n'a plus accès à Internet que l'homme donc ñoom euh, conférence boobu seen but c'était euh, de euh, de de faire de telle sorte que jigéen ñi euh, euh, mën a am accès à internet et aux données parce que li ñu gis ne que ne euh, par exemple benn groupe góor mën nañ nekk homogène mën nañ bokk objectif wala mën nañ bokk ni ngi leen di traité mais c'est pas le cas pour les femmes parce que benn groupe de femmes mën na euh, un groupe de femmes peut se distinguer d'un autre groupe de femmes selon l'ethnie la race wala même le l'éducation mmh. donc ñoom li ñu bëggoon à travers euh, les pays francophones qui ont été visés dans le Cameroun le Sénégal et cetera c'est que ñu gën a jox accès aux femmes euh, à internet donc mais tey man dama foogoon ni accès à internet c'est c'est benn la que ce soit góor yi wala jigéen yi wala du du du benn dafa am différence bu rëy bu si am non non du benn parce que ñoom fi ñuy waxee mooy par exemple dans les villages reculés d'accord parce que il ne parle parle pas de de de la ville. parce que mm-hmm. la ville tout le monde est instruit donc nit ñi. Euh, am nañu facile sa téléphone voilà ku nekk am na sa euh, mais léegi li ñu bëgg mooy ñoom que jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci village yi di bay wala ñi nga xamante ne elles ne sont pas alphabétisées. Mm-hmm. ñu ñu am accès à internet parce que góor ñi ñooy gën a gaaw. Euh, ñoom ñooy gën a farlu si loolu mhm. que jigéen ñi ñoom mais facilité voilà donc ñoom dañu bëgg égalité de genre boobu am au niveau de internet parce que gis nañ ne que tamit jigéen ñi dañu farlu mhm. ndax ñu ngi ci ay groupement ñu ngi ci yeneen ak yeneen donc ñoom dañu gis ne que ne 50 pour cent de euh, de femmes ont moins de chances d'être connectées par rapport aux hommes d'accord donc dañu defar seen benn euh, plan d'action boo xamante ne dañ ko diviser en cinq cinq pàcc lañ ko def mhm. benn bi mooy les droits mooy ñu protéger les les droits des femmes et euh, la vie privée en ligne surtout euh, ñu doter la police et la justice de la formation et des ressources nécessaires pour lutter contre la violence en ligne donc loolu benn moyen la bu ñu am déjà pour sécuriser accès aux femmes mm-hmm. éducation donc intégrer euh, l'alphabétisation numérique Euh, euh, de base dans les programmes scolaires à tous les niveaux donc même écoles yi nga xamante ne c'est dans les villages dañu bëgg a commencer foofu alphabétisation euh, numérique jàng internet jàng connexion parce que ba léegi am na ay villages yoo xamante ne ay villages reculés yoo xamante ne nii xamaguñu luy internet mhm. téléphone la ñu am basique te buñ ko amee tamit tu vas compter deux une personne sur trois ñoo koy am te en général